وما سقي حتى رنم حتى رنم رنم حتى وزراس وزراس وانك حمل وما قوي بالحياة حتى تيم ومسكين ومسكت أترنم رنم رنم أتأ خير البرية كان يا لو صب لو فيت لو خمم يبولني أم لو غتام لو غتام ما برفو كرمي كارت حتى نقول أيوة wàcc daagu jaana firdawsi kaw la yaa junjung yaa bawla nga yaa banal su toppi sa kër ak jaana ay waa ni rek lan ko لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ۖ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم na yàlla def la ngay mag macha allah alquran di neex na lool su ko defee nag dañuy jox sëriñ bi mu ibbil ñu ci ñaan sunu paree ñu jox adjoint au maire comme yegsi nan wa usalli wa usallimu ala xabibina wa shafiicina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin jaar ci cant gi di ko ñaanaat moom suñ borom bi subhaanahu wa taala lii ñu toogoon fii waxtu yi daaw ñaanoon ko ko te mooy ñu fekkewaat ko ñun ñii ñëpp kenn bañ a manki mu may ñu ko nañ ko ko ñaane woon ñu ngi delluwaat di ko ko ñaan moom suñ borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañu ko mayaat ñu fekkewaat ko fekkiwaat ko fekkiwaat ko ba mu bari lool kenn bañ a manqué te buñ koy fekkee ñu fekke ko ak tal ak wér yàlla mën na ko yàlla na ko ya def ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di xamal ne dikkati nañ fu ñu miin ñëw nañ fu ñu yàgg ñëw tey xeeb yàgg gi yàlla na gën a yàgg muy Malicounda gii ñu nekk defe naa ni bu ñu eggul vingtième édition jege nañ ko lool macha allah comme ni ko Moustapha waxe léegi tànk yi nga xam ni nag moom lañ fiy dox muy tànk yoo xam ne tànk yu am cëslaay la tànk yu yàgg la yoo xam ni maam ya ñoo ko séqoon ak waa Malicounda bàyyee ñu ko ñu di ko dox ba suñu jommi tey ji te wolof nee na lu yàgg dëgg la waaye yàlla na gën a yàgg ndax defe naa 1954 wala lu ko jiitu ba tey jii ëpp na genn wàllu siècle muy diggante Malicounda ak Fass Touré wax nañ leen lan moo waral bu ñu ñëwee ci saasi rek ñuy jubali kër Mariama Saw di sëñ Boubacar Saw ak sëñ Ibrahima Saw xam ngeen historique bi waral loolu ndax xam ngeen ni ñoom ñoo nekkoon hamzatu wasl bi daan dox diggante sañ haadi ak malikunda ànd kook mag ña suñu bàyyi Boubacar Faye suñu bàyyi Ibrahim Faye ba ci suñu mag ñi fi nekk yal leen fi yàlla gën bàyyi suñu bàyyi Omar Faye ba ci ñoom suñu bàyyi koos yi ñii fi ne yàlla dogal na tey ji li muy tàng ak di xat yépp fexe nañ ba jëmmoonteeg ñoom ñépp nañ ko daan defe loolu bu amee lu muy wane day wane ni ñu ngi jéem ci kóllëre gi dara loolu moo waral Malicounda doon bis boo xam ne bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu la ci sunu agenda Malicounda li programme yi bari bari bari dafa doon lu ñu marqué ci sunu agenda bés bu ñu fonk la ndax bisu ndigal la bisu bisu bisu ndigal la bisu kóllëre la loolu moo waral suñu teewaay bi ñu teew waaye nag ñu teew fekk fi macha allah ñoo xam ne ñu ñu ñu ñu mën a teeru la ñu wax dëgg yàlla ci ay góor ak ay jigéen ci ay góor ak ay jigéen ci wàllu organisation bi ci wàllu ganale gi ci wàllu dalal gi macha allah ngeen gisee tant bi nii mu yànje macha allah ak jotaay bi nii mu rafete macha allah ngeen xam ni. ay ndaw yu déterminé wu ay ndaw yu am taxawaay ñoo ko taxaw te moo ne bés bi day buñ ko jàppeek léegi taxu koo yàgg loolu bi ñu jàppee ni la kaat la taxu koo yàgg matagul sax weer mën naa wax loolu wala nga xam ne weer tuuti lay doon ndax ay bis yu mu dajeel ci ay yeneen date yoo xam ne ñoo bokk même programme la dogal ñu jàpp ko la kaat ndax mënul woon a bañ a nekk la kaat ndax la kaat moom buñ ko soona romb rek li ma leen di wax mën naa dugg ci biir koor gi te xam ngeen ni gàmmu koor moom day doy waar wa illaa mu génn koor gi te ginnaaw koor moom xam ngeen ni daanaka nawet la rek te xam ngeen ni gàmmuk nawet moom yàlla lu ko soob lay def yàlla lu ko soob lay def mën naa taw sa kaw mën naa def lu nekk moo tax ñu jàpp ko la kaat ci diggante bu gàtt waaye yàlla dogal macha allah mu am réussit boo xam ni ci wàllu préparation loo xam ni wax naa ko organisation bi Moustapha wax naa ko organisation bi dem ba Faye ak mboolem ñu ko yore ñoom Thierno ñoom ñoom ñëpp rek wax naa leen ni leen bu leen am lenn lu ngeen di xalaat ci Malicounda ndax bisu Malicounda day bis boo xam ne bisu ndigal la bisu garanti la kili alhamdulilahi inchaa allahu bu ngeen gisee macha allahu mu am tànki kanam loolu nag lañ leen di wéy di leen ko garantil di leen wax ni lu mu xat-xat-xat lu mu xat xat bu leen am lu ngeen di xalaat insha allahu yàlla dana ko taxaw te loolu bis bi wane na ko defe naa ni man ngeen ci sax loo xam ni mënu leen koon cee ko jiitu ak dat bi li muy gàtt-gàtt waaye li ma leen di dénk rek waxoon naa leen ko fële mooy wax nañ ko sànq ñu ni gouverner c'est prévoir waaye itam dañoo wax ni lu mënti doon rek ci àddina c'est prévoir mbir da koy waaj lu yàgg ko defee bu ñu yàlla may ñu fekkiwaat ko woneen yoon incha allah bu ngeen accepté gàmm Fass Touré bala ngeen faa jóge ñu jël calendrier bi wax ni bés sàngam mooy doon bés bi mu jeex pré muy bés boo xam ne teel ngeen koo jàpp ñépp teel koo xam ngeen gën koo mën a prévoir bu ko defee lu mu baaxoon dana baax lu ko ëpp loolu ñu ngi leen koy digal di leen ko conseil incha allah ndax bëgguñu tam xalaatuñ benn at buñ ko tebal incha allah waaye tam bëgguñu nag di ko puus rek di ko puus ba mu dugg nag ci biir fi nga xam ne wax naa ko te mooy koor gi wala nawet bi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax dem ba yow ak Moustapha yéen nekk ci bopp bi ak ñi ci ginnaaw ñoom Omar ak ñoom ñëpp ñeen na ngi ñuy dégg ñu ngi leen di dénk loolu bu baax ginnaaw ba noonu naa danaa leen ko gën a dénk yéen a ngi ci sax waaye danaa leen ko gën a dénk mooy lu ngeen gën a man ci benn la dëkk yi ngeen def ko bu baax a baax ndax dëkk yi benn lañ masa doon damay wax ni sax ba léegi benn la malikunde yi benn lañu surtout malikunde gi ba kër waal yi ba taaxum sax umpulu leen nu sànq ci bëccëg bi li muy xat-xat bi ñu jógee ci kër ki yi ñu visité ci biir dëkk bi yenn kër yi nga xam ne bu ñu sañoon duñu romb benn buntu kër waaye bi ñu paree ba génn dem kër waali seeti sañu Omar nga xam ni moo fi mag tey yal na ko fi yàlla yàggal ba ca kanama kanam bañ fa jógee continué nañ ba ca kanam ay dëkk ca kanam ba boori taaxum waaye damay wax ni lépp rek mën naa wax ni benn dëkk la waaye nag dafa rawante diggante Kër Waali ak Malicounda loolu ñu ngi leen koy gën a dénk bu baax Cheikhou ñu ngi leen koy gën a dénk bu baax ñu ngi leen koy gën a dénk bu baax sëñ Alsaan Babacar yéen a ngi ci sax waaye nu mu gën a kiyee bu ngeen fàttalikoo sëñ Boubacar Faye da daan jóge Kër dox ak tànkam julli si fajar fii ci jàkkay Malicounda def ko tisbaar def ko tàkkusaan def ko timis def ko gee te loolu dara waru koo dindi bu ngeen demee sax ba am jàkka loolu symboliser woon na bennoo koo xam ne mi ngi fi woon te ba léegi moo war a kon ne mooy continuer sax waaye fas lu mu daw daw dañ koy làbbali bu ko defee bu leen dara séparé bu leen lenn séparé bu ngeen dem ba dëkk yi màgg sax déedéet bu leen dara séparé bu ngeen séparé woo ku leen ko mën a wax bu ngeen séparé woo néew doole lu ngeen gën a boole seen bopp waa Fass de ñoom xamuñu sax kër waale boo nekk Malicounda rek ñëpp dugg ci biir te bu buñ lay yebal wala ñu lay yónni kilifa yi dañ naan la rek malikunda kër waale ngi ci biir lépp ngi ci biir loolu nañ ko gën a téye bu baax baax ndax al ittihaadu quwwa al ittihaadu quwwa bennoo moom doole rek loolu ñu ngi leen koy dénk bu baax ñu ngi leen di jotal nuyooyu suñu papa suñu sëriñ sëriñ Abdoul Aziz Touré nga xam mooy xalifa sëriñ Haadi Touré di directeur général ca institut islamique ba ca fas Touré bu ñu fi ñëwee ci ndigalam lañ fi ñëwee ci kàddoom ak i tànkoom lañ fi ñëwee nañ daan ñëwee ci ndigalu suñu kilifa suñu baay Serigne Maodo ture yal na ko yàlla nige àjjana yi kawe yal na ko yàlla xaare àjjana yi kawe bu ko defee bala may sori maa ngi maa ngi maa ngi leen di jaale mbokk mu baax moo xam ni waxtu yi fii la fii la daan toog ak ñun di Aline Diop oustaz Aline Diop ku amoon taxawaay ku jàmbaare woon ci. yoon wi ku jàmbaare woon ci daa daaira bi ku jàmbaare woon ci dëkk bi ñu ngi leen koy jaal bu baax defal nañ ko ñaan ci yoor yoor gi ci kaamil bi waaye ñaan du doy ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax di ko ñaanal yal na ko yàlla nigay àjjana aleykum salaam bismillah bismillah bismillah organisation bi yëpp ak daaira bi ñu ngi leen di wàcce seen wàccuwaay may sa di leen dalal yàgg ñi nga àndal ñëpp incha allahu naa bu ñu daaneelee ñu jox leen seen kàddu ngeen man koo dottal ndax yéen da ngeen di wër rek incha allah da a ne si njaboot gi bu ko defee ñu continuer suñu programme incha allah bu ko defee ngi leen di jotal nuyu yëpp suñu sëriñ sëñ Abdoul Aziz Touré di ko ñaanal yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam ba mu yàgg at yu baree baree baree baree bare tey jii moo fi suñ sëñ Haadi Touré ginnaaw bi ñu gisatul sëñ Pape Maodo ture mu xamal ma mission bi na la ko sëñ Maodo sante woon noonu laa la ko sante waat del dem ca Malicounda di leen nemmeeku del dem Mbayeen del dem Kër ma sàmba del dem mbooleem foo xam ne njaboot gaa nga fa mu ne ma dee fa dem ba pare ñaanal ñu tegal ñu ci loolu nag dolli nañu assurance loolu dolli nañu garantie dolli nañu tam ñu gën a sawar ci li nga xam ne moom la ñuy def waaw bu ko defee nag euh, ni nga xam ne it noonu la ñu ànd ak ñi ñu àndal ñëpp ci délégation yi ñu àndal mënuma leen a ñoom ñëpp Moustapha ñi mu àndal ak Moustapha mi ngi doon wax léegi euh, ba ci mënuma leen a lim ñoom ñëpp macha allah Malick Diop ma beral nag soxna yi nga xam ne ñooy ñiy toog suñu kanam ma jiital si yaa Sayda nga xam ni moom jigéen ñi miin nañ ko bu baax macha allah mu di leen di defal waxtaan woo xam ni wuy dugg ci seen xol la moom yaa Sayda ak suñu jarbaat Ayda si ànd ak moom ak euh, soxna. nday faatu ak euh, ñoom nday antaak ñëpp suñu goro yi ñëw bokk ak ñun guddi gi ñu ngi rafetlu seen teewaay bu baax a baax ñun waa Ndel ñëpp dëkk yi bari la ñu jógee ñu ngi jógee ba Ndar ñu ngi nuyu bu baax sëñ Mor Fall di ko massawu coona kilifa la goo xam ne du ko wane mukk waaye at mu nekk fu ko Malicounda fekk da ko fay bàyyi ñëw ku fonk ku fonk dat bi la da ko bàyyi lam doon def lépp ñëw bokk ak ñun sëñ Mor ñu ngi lay wàcce di la sant di la di la di la ñaanal yaa ngi ñi nga àndal ñëpp ñëw di nuyu ñoom Cheikhou di nuyu ñëpp ñi nga xam ne rek ànd nañu ñoom ba ci ñoom sa Diop ak ñeen àndal ñëpp mënumaa leen ñëpp mbokki fas yeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wàcce seen wàccuwaay bu ko defee xam naa waxtaanu tey bi incha allahu dama ci ubbi tuuti rek ngeen xam ko li ci des incha allahu xam ngeen ni gàmm gi léegi dem na ba. xajatul ci guddi gi ndax programme bi Moustapha mi ngi yore benn chronogramme boo xam ne boo ko liiree daanaka kenn ku nekk lan ci am bariwul diggante waxtaankat yi ak jàngkat yi ak kàdd yi ñuy dugal ba ci Mor Seck booy nodd fii gàmm Malicounda mooy gàmm gi nga xam ne vingt-quatre heures macha allah yaa ngi koy rulle te doo nelaw wala boog man bi ñu ñëwee ci kaamil bi ba bu ñu fiy jógee fii bu ñu fiy jógee dañuy nodd fajar bu ñu jullee fajar ba pare door fee jógee dem bu ñuy dem jant baa ngi suñu kaw nga xam ni amul nelaw loolu nag barke la macha allah yàlla na jëm kanam ak dogu te kenn du yëngu kenn du jóg jigéen ñi lu ñu am dañu koy maye ba mu jeex tàkk loolu détermination la dogu la loolu loolu loolu am na am na loo xam ne daal am na lu mu wane waaye yàlla na jëm kanam bu baax a baax. Euh, Moustapha Ndiaye incha allah dana ñëw ci waxtaan wi ñu ngi wàcce bu baax euh, sëñ Ousmane fay Oustaz Ousmane fay mi ngi nii suñu ndeyjoor di jàmbaar di borom xam-xam at mu nekk moom it mu bokk ak ñun jotaay bi. ñu ngi nuyu waa taabal ji bu baax a baax a baax di rafetlu macha allah ci ngoon ba léegi macha allah li ngeen di def am na solo yal na yàlla sàmm kàddu yal na yàlla sàmm baat yi maxtaar yal na yàlla sàmm baat yi. sëñ ma Ndiaye sëñ Madiaye Niang ngi jege ba Mbaayeen di mag waaye at mu nekk rek mu jóg ànd koog ñun te ñi waroon a àndal ñëpp bu woon li ñu tukki danañ gën a bari macha allah xam naa bu fekkee ne dama mën a bëgg continuer di lim sax dina gën a bari bu soobee yàlla macha allah waaye damaa bëggoon rek ñu ngi nuyu itam waa Ndourène bu baax sëñ Souleymane Seck jibi mi ngi ne toog jaar nañ fa sànq def fa waxtaan wu am solo ak oustaz euh, Ousseynou euh, Ndour ak mbooleem macha allah dëkk yi daal foo ci dem da xam ne rek du ñaari dëkk benn dëkk la macha allah loolu ñu ngi leen koy seedeel bu baax a baax. di leen ci soññi bu baax a baax damaa bëggoon nag bu ñuy def waxtaan ci li arab di wax naan li kulli maqaamin maqaal yaa saydaa dana ñëw ci waxtaanam ci benn thème boo xam prévoir na ko ci li ñuy wax as sabr as sabr mooy muñ as sabr mooy muñ dana ci ñëw insha allahu Moustapha Ndiaye am na lu mu waaj ci li ñuy wax ar rahmatu ar rahmatu mooy yërmane man nag moom euh, macha allah dama damay xanaa daanaka semaine bu bu ñëw rek da ngay def waxtaan. moo tax euh, waxtaan yu bari yoo xam ne defoon nañ ko man dama leen di bàyyi tey ubbil leen rek ñoom ñu dem waaye tey li ma leen di ubbil mooy li ñuy wax maqaamul maqaalul maqaam maqaalul maqaam wala ma ne li ñuy wax maqaalu zamaan dañoo wax ne li kulli zamaanin maqaal waaye tam li kulli makaanin maqaal waaye jamono jii moom li fi waxu mooy weer wii ñu jëm ak weer wii ñu nekk loolu laa bëggoon rek fàttaliwaat ci bu baax importance bi ci kàddu yu gàtt bu ko defee ma jox monsieur le maire mu mu mu mu def ay kàddoom ngeen continuer programme bi incha allah. Mm-hmm. fii ñuy wax ak yéen ñu ngi ci weer wu ñuy wooye weeru Chaabaan xam ngeen ni Chaabaan moom la wolof di wooye weeru baraxlu weeru baraxlu la ko wolof di wax. daanaka jeex na sax su ma juumul suba ci dimanche ji mooy séentu bu njëkk buñ ko séenee man naam incha allah altine doon benn fanu weeru koor wi. bu ñu ko seenul incha allah altine doon seenu bu njëkk talaata incha allahu doon benn fanu weeru koor wi moo xam séen nañ ko si wala ginnaaw suba yàlla nañ ci dugg bismillahi rahmaani yàlla nañ ci génn ak alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nangu ñu luñ ci def ci ay koor ak lu baax muy weer woo xam ne dafa bokk ci weer yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cité wala sax ma ne dafa bokk ci weer yi nga xam ni suñu borom bi subhaanahu wa taala moo ko njëkk a cité ci biir alquran suñu borom bi dafa am ay weer yoo xam ne daf leen a tuddal boppam wax leen deen wooye ay weer yu saint weer yoo xam ne al ashhurul xurum la ko wax mu wax ci aaya bi ne inna iddata shuhuri inda allahi ithna ashara shahran fi kitabillah yowma xalaqa alsamawati wal arda minha arbaatun xurum mu wax ni fani weer wi mu mel ni dañuy jàngal lan mooy at mi ay weer ñaata weer ne ci at mi te loolu ci côté astronomie defe naa ni bu ngeen ca demee da ngeen gis ni suñu borom bi subhaanahu wa taala ku fonk ku fonk jamono la ku fonk weer la ku fenk waxtu la loolu ci côté astronomie muy géej gu yaatu waaye daf ñu wax ni fukki weer ak ñaar yi minha arbaatun xurum am na ca ñeenti weer yoo xam ni nee na day weer yu ma fonk weer yoo xam ni weer yu ma weer yu ma sellal la weer yoo xam ni nee na boo yëgee ni jamono yi nga xam ni guerre da daan am ak jihaad nee na weer yooyu bu benn weer ñëwee dañuy teg ngànnaay yépp kenn dootul xeex dañuy teg ngànnaay kenn dootul xeex ba weer yi jeex weer yooyu ñeenti weer la bi ci jiitu mooy bi ci jiitu mën naa wax sax wala man ne bi ci euh, bi ci mujj mooy euh, rajab bi ñu génn barki dem rajab bi ñu génn barki dem bi ci jiitu mooy dul qaada dil xijja muharram nga door a tëb ci diggante bi ñett wala ñeenti weer door cee bo dolli rajab muy ñeenti weer yoo xam ne suñ borom bi ne ne mooy weer yu sell yi rajab nag li tax mu beru ci ñeenti ci ñeent yële ñett yi nekk fale moom mu nekk fii tax nañu koy woowee rajabul fardi rajabul fardi rajabul fard mooy weer woo xam ne daa beru waaye ñeenti weer yi suñ borom bi subhaanahu wa taala nee na lu ngeen di def ba weer wu ñëw na ngeen ko teg ci suuf te jàmm rek di ci xew yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaat ci biir weer yi ba léegi mu ne rajabu shahrullahil muharram nee na rajab mooy suñu weeru suñ borom bi subhaanahu wa taala mu teg ci ni wa chaabaanu nag chahri nee na chaabaan moom sama weeru bopp la man muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ramadaanu nag chahru ummati mu ne ramadaan moom mooy sama weeru xeet wi nga xam ni bokku ko kenn weer yi boo seetlu li gën a am ci histoire islaam li gën a am solo mi ngi marqué wu ci biir weer yi te mooy ñaar yi ma lay bëgg a li ëpp ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi mooy julli julli ñi ngi ko ko jox ci biir weer wi ma wax léegi muy rajab rajabul fard keroot ci eh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci la jibril ñëw wàcc màkka ànd ak fasam wu gaaw wa ñuy wooye alburaaq fekk yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ci wetu kaaba gi mu pëkk ko mu jóg mu ànd moom dugg ci ruq tëral ko ak jibril àndal ñu mel ni lu koy opéré xar dënnam génne ko raxas xolam kastewaat dënn bi ànd ak moom waral ko ci alburaaq dem wu si asamaan keroog tukki boobu nga xam ni moom lañ doon tukki muy isra ak miraaj ci la ñu indi julli julli doon lu am importance kon xam ngeen ni weer wi importance bi loolu rek wane na ko ba ñuy dem xam ngeen ni seen tukki ba ñaari tukki la li ñuy wooye horizontal euh, horizontal ak ak vertical bi mu njëkk a départ yonent bi saa salaam bi mu déparé ànd ak Jibril ci alburaax bi ñu déparé Màkka dañoo wàcc baytul maqdis mooy Israël tey jii Jérusalem fa la ñu wàcc yonent bi saa salaama daje faak yonent yi jiite leen ak julli bi paree ci julli yi nag mu door a ànd ci euh, alburaax ak Jibril déparé baytul maqdis te mooy Israël yéeg ca kaw nag wuti suñu borom dema sallallahu alayhi wa ak jibril jibril dem naa dem ba mënatu la dem mu taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continuel boppam ba àgg seen borom inda sidratil muntaha indaha jannatul mawa yonent bi sallallahu alayhi wa dama koy faral di wax damay wax ni dimension kaw suuf xamuñu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem asamaan bi mu njëkk yéeg muy sama bi ñu bi ñu tiim nii asamaan bi ñu tiim bi mu demee ma nga fa fekk suñu maam aadama alayhi salaam yonent la yonent bi mu demee mu fëgg ñu ubbil ko mu nuyonteeg moom saafonteeg moom ñu bàyyi ko mu continuer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ñaareelu asamaan fekk fa Isa ak Yaxya ñoom ñu tatagal ko dalal ko mu nuyoog ñoom continuer la tax lu tax lan moo tax Isa mu fekk ci yonent ci ñaareelu asamaan ñaari ñaari ñaari yonent loolu ab laaj la asamaan bu njëkk bi mu ngi ci fekk Adama. asamaanu ñaareel mi ngi ca fekk Isa ak Yaxya asamaanu ñett mu fekk fa Yuusuf asamaanu beneen bu fekk fa Haarun asamaan bi ci mu fekk fa Idrissa asamaan bi ci mu fekk fa Muusa asamaan juróom-ñaar mu fekk Ibrahim asamaan yëpp kenn ku nekk benn yonent la fa fekk ba mu des ñaareelu asamaan mu fekk fa ñaari yonent lu a loolu parce que Isa insha allahu jëmmi jamono Isa day wàccaat ñëw àddina te asamaan si warul libre benn yoon bu doon Isa rek moo fa nekk kon bu Isa wàccee kon kenn du fa des moo tax ñu jël isa ak yaxya teg leen foofu te xam ngeen yaxya li tax ñu tudd ko yaxya xam ngeen isa fi ak parcours am jaar isa mooy ku amul baay isa mooy ku am yaay amul baay yaxya xam ngeen parcours am moo tax seen cas spécial la ñu nekk deuxième asamaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam romb leen ba àgg suñu borom gisee moom mu jox ko la mu ko jox muy julli mu wàcc bi mu wàccee asamaan bi mu ñëw soit juróom-ñaareelu asamaan ñii nañ fa la Moussa nekk wala juróom-benneelu asamaan ñii nañ fa la Moussa nekk ñii ne Ibrahima moo nekk si juróom-ñaar musa nekk si juróom-benn ñii ne Moussa moo nekk si juróom-benn moo nekk si juróom-ñaar Ibrahima nekk si juróom juróom-benn ala kulli xaal bi mu wàccee jóge ci suñu borom te kat tukkeem boobu li muy gàtt gàtt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wër na ci ci fadaa bi tukki na ci visité na ci mboolem li nga xam ni suñ borom bi sàkk na ko ci kaw yonent bi dem na seeti àjjana visité na ko kër par kër jóge na fa dem visité sawara yonent bi dem na visité nañu mettit wa mu metti lool la nga xam la fa fekk ci ay mbugal yu metti yonent bi wax nañu ko ci génn guddi gis na ko ba mu fa jógee dem na visite li ñuy al baytul maamour baytul maamour benn genre kaaba bu nekk ca kaw bu doon ci suuf la dama naan kaaba gii ñuy wër la waaye baytul maamour beneen kaaba la boo xam ni ma nga ca kaw asmaan te mu ngi méngaloo ak kaaba gi ci suuf nga xam ni bu fekkoon aw xeer nga fa euh, wàcc mu muy rot te jàdd fenn bu rotee ci kaw kaaba gi lay rot moo kaaba gi nii lañu def te chaque jour juróom-ñaar fukki junni malaaka dana ko war dugg ci biir génnaat di fa ja di fa sàbbal suñu borom te malaaka mu dugg dootul duggaat ñooñu ñu dàq jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def visitam mu def yépp def ko ci genn guddi ñëpp di doy na waar lool bu doon ci xel rek doy na waar waaye kamuy doy ci moom waar mooy ki nga xam ni tënk euh, temps ak espace ak temps def ko tënk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam distance tënk ko yonent bi sallallahu yàlla suñu borom subhaanahu wa sax lay wax distance tënk ko temps tënk ko yàlla li mu am mooy al aanu daaim al aanu daaim léegi léegi ju sax dàkk la yàlla am léegi léegi di sax dàkk la yàlla am yàlla li xewoon daaw. ak démb ak li nar a xew ëllëg ak liy xew tey lépp a ngi teew ci kanamam yàlla li muy gis da koy dégg waaye li muy dégg da koy gis yàlla bu gisee bu bidong bi ci kanam sama kanam yàlla da koy gis waaye da koy dégg waaye yàlla bu déggee ay wax day gis wax day dégg wax ji waaye da koy gis maanaam yàlla dara da koo tënkul te kum neex tam bu la dugalee ci loolu dara du la tënk looloo may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci génn guddi gi mu jóge ci màkka dem baytil ma maqadis jóge fa dem suñu boroom gisee ak moom dellusiwaat ci même guddi gi wër àddina wër kaw asmaan gi yëpp ñëwaat moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa ko bu yàggul mani leen yonent bi dafa spécial dafa spécial hamziye bu wax na ko kayfa tarqa ruqayyakal anbiyaau yaa samaan maa taawalat ha sama yaa samaan maa taawalat ha sama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn kenn du kawlonteeg moom asamaan bi gën a kawee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ترقى رقيك الأنبياء sifaataka linnaasi kama masalu nujumal ma nee na ko melal gi ñu lay melal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa mel ni ni ñuy melale biddiw ci biir ndox nga jël siwoob ndox def ci def ci nga jël ab siwoo def ci ndox bàyyi ba asamaan weex tal biddiw asamaan ñuul kukk biddiw ne ci biir weex tal nga woowaay ba mu ñëw nga ne ko gis nga biddiw yi ci biir mu ne la waaw nga ne ko nii mooy biddiw wan nga ko lu tuuti te wan ko lu rëy da nga ko won lu tuuti waaye won nga ko lu rëy innama masalu sifaataka linnaasi kama masalan nujumal ma yonent bi saa salaam duñ ko xam moo tax Seydil Xaaji Malik si yàlla nañu ko yàlla fayal bi mu duggee ci biir boor boobu dañu innal awalima aaliha wa saafilaha ashiatun talaat min afdali nasir mooy bii ñu nekk aalam bi ci topp mooy aalamul malakut mooy ba ca topp aalam bi ci topp mooy aalamul jabarut mooy ba ca topp aalamul ba aalam ba ca topp mooy aalamul naahut mooy ba ca topp aalam ba ca topp mooy aalamul haahut muy ba haahuutee juróomeel ba te aalamul naasut bii ñu nekk mooy bi nga xam ni al ajsaam al kasifa moo fi nekk nga xam ni dangay ngay daj yaram yi da ngay làmb di daj suñu suñu suñu suñu monde bi da ngay làmb Moustapha daj ko làmb fauteuil bi daj ko làmb weñ gi daj ko loolu mooy al al al al al al islaam al kasifa mooy suñu monde àddina bii nga xam ne moom moo gën a ñàkk solo ñu yaakaar ne lu ne la monde yi ci des bi ngay njëkk a jot foofu al al aalamul arwaax la foofu ay leer la ngay gis ay leer jëmm yi ay leer la ay leer lay doon ya ca des nag moom xawma ca dara du ma ci wax dara waaye li ma bëgg a wax mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aalam bi nga xam ne moom la moom moom la Seydil Xaaji Malick si wax te alamul aalamul aalamul alamul aalamul malakut naasut mooy bii ñu ne waaye aalamul malakut mi ngi tàmbalee ci asamaan bii ñu ne juróom benn juróom ñaar juróom ñaar ñett ñeent ba juróom ñaareelu asamaan yëpp mi ngi ci benn aalam juróom ñaari asamaan yëpp benn aalam seetal ma lool waa kon jabarut num toll laahut moo xeexut nu mu toll benn fada la boo xam ni kenn xamul nu toll la fay féey ci ay ci ay globe la fay féey ci ay ci ay planète la fay féey ci ay ci ay ci ay jant ki biddiw te biddiw kat waaja nee na ko innama masalu ka te biddiw ni mu ëppee jant kenn mën laa nu toll jàpp nañ ni biddiw gën a tuuti lii gën a tuuti te mu nekk ay milliards yi ci ay majaraat yoo xam ni kawaakib samsiya moo ci gën a ndaw nga xam ne zuhalun shara min riixahu min ardina fa tazaharat li utaarid al aqmar zuhra min riix mustari ba mu àgg juróom-ñaar yëpp boo leen boole ñi al kawaakib asaba benn biddiw ci yooyu moo ëpp yëpp ñu ne ñun nag ñu defee ni suñ suuf si mooy lépp tubaab yi defar seeni avion di dem ak a ñëw defaruñu tus raw nañ leen bu yàgg fii du tus bu doon suñ borom bu yàlla tëlul ñu pepp suuf ñun nag ñun nit ñu ne ci kaw réy réy réy noo xam ne kenn xamul lu doon te duñu dara duñu tus duñu tus xamuñu suñ bopp yàlla fonk ñu lool ñu réere suñ bopp lool yàlla nguuram gi bokku ko kenn yàlla kenn la yàlla buur la yàlla sang la loolu nañ ko xam te loolu bala nga ko xam da dugg ci akwaan yi ma lay wax nii loolu moom la moom la moom laa leen bëggoon wax tuuti ci weer wi nga xam ni mooy weeru rajab nga xam ne ci lu ñu jëli woon julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu jógee ca kaw asamaan ci genn guddi gi wàcc ñibbi si ki mu njëkk a wax tukkeem bu bu doy waar boobu mooy bàjjanam bu ñuy wax ummu haani bi mu xëyee la ko ni man day bàjjan dama demoon biig ci guddi te biig gee fi la ma fekk waaye biig ci guddi daal euh, jibril ñëw na jël si ma ak wu fasam muy alburaax dégg ngeen alburaax bu ngeen ko xamul dem naa fi Israël kii nu mu tuddati baytul maqdis jóge naa baytul maqdis si guddi gi dem naa fi kaw asamaan dem naa àjjana visité naa sawara dem naa baytul maamur dem naa fii dem naa fee dem naa ba toog ak suñ borom subhaanahu wa taala ba mu ko waxee bàjjen bi daa téye gémmiñ gi mu ne ko moo li ngay wax baa man rek nga ko nettali baa man doog nga ko wax mu ne ko ah yow rek laa ko wax gum waaye danaa ko wax mu ne ko mukk mukk bu ko wax keneen kon lu ñu la weddi woon danañ la ko gën a weddi loolu fu mu mën a am yaw xanaa yow kay da ngaa fanaanee gént rek yow kay da ngaa fanaanee gént rek gént ma mën nga see dem fu ne waaye génn guddi nga dem ci baytul maqdis dem ci suñ borom dellusiwaat loolu mënul na bu ko wax kenn yonent bi saa salaam xam ne li mu nekk dëgg la mu woowaa màkk ñëpp bañ ñëw mun leen tey damaa demoon ci guddi gi seet suñ borom gis naa ko dem naa àddina dem naa sawara dem naa yëg ñëpp ni ko yow li ngay wax nu mu mën a nekke li ngay wax nu mu mën a nekke Aboubacar ni leen moo bu bu ko waxee dëgg la de bu ko waxee dëgg la ñu tudd ko aboubacar ni saddiq keroog ba nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na loolu ñu ne ko li gën a gàtt am na fi mag ñoo xam ni yow boo ne ma dem naa dem naa ndakaaru wala dem naa pale Macky Sall dama naan la lu ne ci pale bi boo duggee loo njëkk a gis pale bi eh, kéel ma ko melal ma ko mag ñu ni ko yow ñu dem nañ dem nañ waxuñu waxuñu sax ca kaw asamaan sa moom ca kaw yàlla mu waxuñu ko waaye wax ñu rek wax ñu rek lan moo nekk baytul maqdis booy dugg lu fa nekk ci Jérusalem lan moo nekk ci euh, euh, xubbatul al xubba al xubbatul alzahabiya lan moo melal ñu ko rek ñun xam nañ ko mag ñu toog di ko déglu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril indil ko beytul maqdis tàllala ko ko nii yonent bi janoog baytul maqdis ni leen am na nangami bunt am na mi palanteer xubba ba nii la mel booy dugg boo duggee sa loxo ndeyjoor rek moquette yi nii la mel bunt bi nii lay ubbi fii la la féete mag ñëpp téye seen gémmiñ ne muy yéen moo xanaa kii dafaa dem bokk waaye dañoo dañoo dañoo iñaan nanguwuñ ko ñu weddi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko yàlla defoon ci biir mbokkam waaye nag mu jigi macha allahu ñëpp nangul ko xam ni kii li mu wax mooy li am moom la yàlla yónni waaye loolu mu ngi xew woon si weeru rajab ñaar fukki fan ak juróom-ñaar muy kasu rajab kasu rajab ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñaar ñu bari di ko woowee kasu rajab waneen weer wi ci topp muy saabaan bi xam ngeen li ci nekk ramadan nag moom duma leen ko wax moom ci la alxuraan wàcc ci la alxuraan wàcc moom it ci bisub bisub bisub bisub laylatul qadri ci la alxuraan wàcc loolu doon loolu rek doy na honneur ci loolu rek doy na honneur ci weer yu rëy yi nga xam ni moom lañ jubloo bu ko defee loolu tuuti la rek loo xam ni lu ma bëggoon a ubbee la ci fàttali ñu xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa waaye fan lañu ñu toll fan la ñu jëm ñu gën koo waajal bu baax a baax a baax gan gu mag gii ñu jëm nga xam ne weeru promotion la weeru promotion la lu ne mën nga ko cee am loolu woon am ci yeneen weer wi nañ ko gën a waajaat bu baax a baax a baax a baax bu ko defee buñ ci àggee jàmm insha allahu ñu fas yéene koo woor te woor damay wax ni du rek ñàkk lekk walla ñàkk naan woor mi ngi ci ñàkk wax ñàkk wax lu sa yoon néwut woor mi ngi ci gëmm say say say bët dafa war a woor sa gémmiñ dafa war a woor say tànk dañoo war a woor say loxo dañoo war a woor sa biir door a woor waaye woor sa biir sa biir xiif sa làmmiñ wi nga yenn ci ron garab bu sedd gii deru deru bu romb nga necca di wax wooroo de bu la neexee wari de woor te loo romb mu dem wooroo de bu la neexee wari de woor te sa koor aw koorin la de koor aw koorin la de loolu ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax a baax kon nañ kooral nañu nañu kooral nañu kooral cër yëpp la la yonent bi waxoon inni la yonent yàlla Isa waxoon nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al yawma insiyan waaw tey jii moom damaa nisara woor waaye lu mu woor falan ukallima al yawma sama làmmiñ wi tey du ma ci wax ak nit kon woor bu caagi nag xiif rek loolu nañ ko xam bu baax a baax a baax mbokk yi loolu laa leen doon ubbil ñu xam kan ma yonent bi ñu xam weer woon lañ jëm nga defee insha allahu taala bu ñu doxee tuuti dangeen ngeen dégg sëñ Moustapha ak soxna Ndey ñu indil leen bu baax a baax thèmes yi nga xam ni waajalal nañ leen ko insha allahu taala ñu ngi jégalu nag bu baax a baax a baax ci kàddi yi le maire maa ngi jégalu maa ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax dañoo bëgg rek yéen itam ngeen ngeen jariñu ci waaw ngeen jariñu ci bari bariwu leen jot di déglu waaye lii moom jar na ngeen dégg ko bu baax a baax a baax loolu la sëriñ Xaadi ture mu tegal ñu ko ci mboolem loxo ku fi teew nuyu kilifa yi nga xam ni ñoom lañu dendal nuyu yaa seydaat nuyu ñi nga xam ne ñooy taggkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu waa daayira bi nuyu jigéen ñi nga xam ni ñoo fi teew ñëpp xam naa sunu kàddu du gudd dafa nekk kàddu kilifa mu yónni ñu waaye kon duñ jël kàddu ndax fii ñu toog li ñu yëg mooy jéggulu dend gi ñu dend ak sëñ bi mu toog ci kaw ñu toog ci kaw beneen bi ci desaat muy kàddu yi ñu yëkkati ci wetam waaye rawatina moom mu yëkkati kàddu ba pare ñu ci teg kàddu ñu ngi koy jéggulu loolu sax moo tax ñun ñu ñu burle suñu protocole ndax mosuñu yëkkati kàddu fenn te du Ibba Samb mi ñu àndal dafa yëkkati kàddu boobu bi ñu doog a dugg waaye nag temps bi moo ñu xoj te guddi gi xat te liñ ci war a ci war a joxe bari sëñ bi dañuy seedewaat rek cant gu bàyyeekoo ci monsieur le maire Maguette Sène ak nuyoo jëm ci yow ak taalibe yi mbokki taalibe yépp cant gi mooy ni nga ko waxee léegi wax dëgg yàlla sunu sakk ga ndax guddi gi ah, ba ñu fàttali ko ba léegi saay bu ñu fi ñëwee nii la ñuy toogee ak yow ñuy ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujj toogaay loolu nag nekk sag bu rëy ci ñun te tey defe naa ni gàmm gi bu yemoon fi sax neex na ndax ni nga ubbee ku fi jógee rek am nga loo dolliku loo xam ne mën nga koo jariñoo ci diggante bu gàtt loolu nag boroom xam-xam la ko yàlla jagleel te dama ne waxoon naa ko ci benn gàmmu fii ni yow kenn du la laaj ndax ku xamul sañ aadi ñun ñi di gone ñu nangu xam-xamu alxaaji Abdul Aziz baax nangu yaram nangu tegginam nangu mbaaxam dañ naan kan moo ko yar ñu ne sañ aadi Ture moo ko yar moo ko jàngal kon adresse boobu rek doy na pour ñu xam kan mooy sa maam sëñ aadi ñu lay ñaan ñu ñaan yàlla yal na yàlla barkeb sa maam topp la te ñun nag xàmmewuñu sëñ aadi mu mag ma ak yow miy toog sëñ aadi rek lañu xam ñu ngi lay yóbbante ci sëñ Abdou Aziz xalifa bi di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla gën a guddal fanam bu baax di wax ni taalibe yi nekk fii tamit

sa taalibe yi fii ca waar woowa la ñu nekk di xenc sunna di dox ci sunna waaye dalal sa xel bu baaxit ci lii nga woote muy ànd bennoo ne ñu ngi ci ndax yàlla suturaal nañu fii de ñun ñii ñëpp suñuy wayjur fi lañ juddoo te la ñu xàmmiku nag mooy fekk suñuy maam ànd nekk benn sunuy baay nekk benn sunu yaay nekk benn ñu fas yéene wéy ca benn googa fas yéene nag it di am kilifa faw lii nga waxit wax ko ci kilifa yi lu ci bari ñu fekke ko ba tax na ñi nga dalal sa xel ca loola ni incha allah duñ ca mos a dañ mukk wax naa la fii daaw ni la bi ma seetee sañ Babacar Sy Mansour mu ma may sa da nga def politik ma ree mu ne ma dag ma koy nëbb waaye dégg naa yaa ngi def politique mun ma xam nga ne yaa ngi ci lu lëndëm ma ne ko waaw mun ma dañ la xas dañ la saaga waaye utal foo ko teg bu ko delloo kenn su ma koy wax ci tànt bu mel nii nag gannaaw ba ma nuyoo sunu nawle yi fi ne mooy ñun ñëpp ñu bokk jariñoo loola kenn bañ a xas kenn kenn bañ a saa kenn te xam ne lañu bokk ma ëpp fuuf lii di politique te allah kulli alin ku fi nekkit lañ lay séntu mooy liggéeyal askan wi waaye lu mu yàgg yàgg yàgg cër bi di ko mos a ñàkk ndax cër bii ñu yor. fekk nañ ko suñu bay Babacar Faye yal na yàlla yokk leeram ba mu fi jógee cër bi jaar na ci Ousmane Gueye tey mi nga sali ba mu fi jógee cër bi jaar na ci màgg ci ci cëble soxo ba mu fa jógee cër baa ngi tàbb ci loxol Maguette Sène waaye nag ñu ngi ñaan yal na yàgg ci loxoom sëñ bi li tax ñu koy ñaan mooy mboolem ñaar fukki dëkk ak ñaar yi ci commune Malicounda monsieur le maire def na fa loxoom ci courant ci ndox ci éducation ci gud guddi yonent bi ci lépp lu askan wi bokk te lu baax nag kilifa gu baax di sëñ Maodo Fall fii ci kër ma séeb yal yàlla yokk leeram te yàggal ko sunu kanam daf ñuy wax nañu boo góorgóorlu ba am lu baax amal fulla ba téyeku ndax gannaaw lu baax lu baaxu rek moo fa am loolu nag ñu ngi ciy woo ñëpp di wax nañu ñoo ko bokk ne ñëpp ñëw ñu ànd bokk Malicounda bokk liggéey ko ànd ak moom ci loola ñu toogoon fii woon ñaan ci yow te dañuy sàkku nga ñaanal ñu ñu def ci malikun lu fi kenn deful loola nag yombul waaye yàlla may nañu ñu nommé mekkul le meilleur maire du Sénégal loola nag sa ñaan a ngi ci ñuy sàkku nga ñaanalaat ko bu baax a baax du ñu guddal sëñ bi dañuy yemale foofu suñuy kàddu rek gannaaw bu ñu santee délégation bii ñu àndal te monsieur le maire boole ñu ak ñoom te mu guddi ba tax mënuñ leen lim. waaye bu ñu limee alaaji bi sekk lim cheikh lim pap Diouf mi conseil dëkk bi mel nañ lim leen délégation bi yëpp ak Cheikhou Dieng waaye lim nuyu tamit délégation fi dajal yëpp te bokk ak ñoom Malicounda yi kàddu daal la ñu amoon lu ñuy wax di sant ñëpp du nuyu suñu frère Demba Faye bu baax a baax parce que Demba li wax toujours rek ñoo bokk bàyyi moom lay wax saay bu nekk te bu ñu teewul woon fii su fi teewee mën nañu wax ne teew na fi conseil municipal bi yëpp ndax cër bi màgget nekk ba nekk maire moom am na ko parce que conseil kon ñun mu ñun ak ñun ak moom ñoo bokk cër bi waaye cër boobu ñu bokk dafa am bu ko jiitu mooy ñoo bokk bàyyi ñoo bokk dëkk bi ñoo bokk guddi gi tamit kon dem ba ñu ngi lay sant bu baax yaag daayira bi yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Ibba xam naa nga joxe rek kii bi. ngeen ji mbindeef ku lay way du moy tuufen ca wax ja lu way wëri su ne yow yaa gën yaa gën ku dul yow fa aqan xiila ay wallahi askay te ji wax sus wax cam su dul yow su dee saydan su dee amran mun ibjay su ne yaa tax ñu asamaaw si ak فحقا قيل أي والله أذكي سني يا تخ نسو سنروي يا تخ نمينو أم فأي والله أذكي سني يا تبئلين أم أجهنم قيل أي والله أذكي su ne yaa tax ñu def ab taw akum xiin jibal ak dënnu ak melxet ni ray ray te yaa tax itam taw ceeboo ki ceppal saxal am ñax saxal gàncax gu bay fa saalika kulluhu aqul li asaa nit ak jinne ak malaayika ñépp lay way te ji wax day na deesu ko wax ku dul yow ndekon muy lor ñuy way ak koy way lu waay manaam ci yàlla budul ko nag du kon am loola moo tax yaa yayoo su dee daw sili i wóor na Seex Tijaan ma di sëriñam bilaay ku war ndigalam yaay xam ëllëg fu man sopp naa ndigalal bay aadi moom lanu xam <laughs> ah macha allah gi ma jeey kenn doyalul yal na yàlla wéral la yal na yàlla yàggal la yal na nga yàgg taxaw di wax lii ngay wax ci way woo xam ni sëñ Abdou Aziz ture moo ko def ci woy juróom wa sëñ Hadi Touré su ko defee nag euh, parrain yi am na koo xam ni moo ci des ndax bis bi bu tollee nii xam na ñoo xam ni dañ cee dugal seen loxo donc am na parrain bu xam ni mi ngi fii di Mamadou Dia su ko defee moom tam mu ñëw def participation ci bis bi di si jiital sëñ Hadi Touré di nuyu kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñëpp di sant yàlla bi ñu fekkaatee gàmmu bi nga xamante ne fekke woon nañ ko daaw te di ci gis rekk yokkute a di nuyu waa dëkk bi aussi di nuyu jigéen yi di nuyu ñëpp di ñaan sëriñ bi ci barke papam mu ñaanal ñu si dëkk bi mu bokk ci dëkk bi nga xaman dëkk yi nga xamante ne eh, yu naat yi ñun nag dañuy nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ay ndaw lañu nekk ci biir commune bi di bëgg commune bi gën a yokk ñu ànd ak ci ak ñoom Demba fay ci biir politique di ñaan sëriñ bi rek mu ñaanal ñu ci lépp li nga xamante ne dëgg nañ ko ci yeneen dëkk yi. ñun tamit ñu mën koo am suñu dëkk bi te je pense que suñ si ñaanalee yàlla mun nañu koo defal bugguma woon xam naa sax jël parole mais comme dañ ma koo jox ma ne naa si barkellu rek di di di yem foofu xam naa ne di ñaan ngeen ñaanal ñu rek incha allah ba beneen yoon jërëjëf kontaan nañu baax. jërëjëf Dia sa taxawaay rafet na kàddu yi itam rafet na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax su ko defee nag Malick joxoon nañ ko 15 minutes mais wàññi nañ ci muy 10 minutes. sirun turna nasirun turna munsirun turna noorun turna daay turna motun turna mujibun turna mujaabun den koy xafiyun turna afuun turna walliyun tuna haqqun tuna hawiyun tuna aminun tuna mahmunun tuna karimun den koye mo den koye matiinun den koye mubiinun den koye mo den koye suulun den koye su hurmatin den koye su hissin den koye su makanatin den koye su faddilin tuna mutaaxun tuna mutiiqun den koye hadamol setfi tuna rahmatul busra den koye awton den koye iyaton biyen koy no hatulay tuni hadiyatulay tuna ruutul wusta biyen koy siratulay tuna siratul mustaqim tuna sikrulay tuna sayfulay tuna kisbulay tuna nañ mustaqimun biyen koy mustafa biyen koy mujtaba tuna amiyun tuna muxtaarun tuna ajiirun tuna jabaarun tuna abul xaasim tuna abu taydi tuna ewa ibrahima tuna saalixun tuna muslixun tuna muhayminun tuna saadiqun tuna musaddaqun tuna sidfun tuna seydil mursalina den koy imaamu taqina den koy faydul qurri den koy muxajjalina tuna qalirurahmani تنا بر تنا مبر تنا وجيح تنا نسيق تنا ناسح تنا وكيل تنا مكل وكيل تنا سفيل تنا سقيم تنا سنة المقدس ذن كوير الحق ذن كوير القسط تنا بالغ تنا مبلغ تنا سافل تنا واصل تنا موصول تنا سابق تنا سايون تنا هاد تنا مهدي tuna muqaddamun den koy xasiisun tuna faadilun tuna mufaddalun tuna miftaaxun den koy miftaaxu rahmati tuna miftaaxul jannati tuna qalamul imaani tuna qalamul yaqiini den koy daal xayraat tuna musaal asanaati tuna subun ani sulaati den koy saabul safaaxati den koy saaqibul maqaami den koy saaqibul qaddami tuna maqsuusun bil qisti den maqsuusun bil sarafi tuna saabul wasiilati tuna saabul sayfi tuna saabul isaari di leen koy saabul xujjati di leen koy saabul darajaatu rafiqaat di leen koy saabul taaji di leen koy saabul mifari di leen koy saabul fadibi di leen koy saabul buraaq di leen koy saabul xaatimi tuna saamul xalaamaati tuna saabul bayaani tuna saabul burhaani tuna fasih lisaani di leen koy mutaharu jinaani tuna usunul xayri tuna saydul kawnayni tuna aynul nahini tuna xafdul xalqi dina saatibul umami di leen koy istul faraji saabul faral yi mu ne ñaari téeméeri tur yango ak benn lu ci bis lay wax parce que fii lay la sënati anal taarifi a anal mura وجل محمد فتة إلى بصر القوم بها أنبياء jërëjëf Malick jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na yàlla wéral baat bi yal na yàlla fay la su ko defee nag ñu jëm ci euh, ki nga xam ni toujours su yëkkatee kàddu mu ngi koy teg ci alquran ak sunna ba bari na waxtaanam lu muy tooyal xol yi ndax dan wax ni wax su jugee ci xol rek ci xol la jëm moom li muy yëkkati di ko wax da ko njëkk a jëmbat ci boppam dog ko yëkkati di ko wax nit ñi te jotaay yu mel nii njariñ li mooy ñu fiy summeekoo di fi solo sëñ bi wax na ko sànq taxalli lii ak tajalli war na noo mën a summi fii ay mbubb sole fi yeneen mbubbu suul fi ay jikko sulli fi yeneen jikko yoo xam ne dañ koy def ci sunu bopp mag ñi dañ daan jël benn aaya alquran ñu defar ci seen dund soxna si li muy bëgg a yëkkati muy loo xam ni mooy secret daanaka dund doomu aadama muy sabaru muy muñ mu interpellé góor nag interpellé jigéen képp koo xam ni jikko boobu nekkul woon ci yow na taataan déglu te déglu nag balaa jariñ nga jëfe kon ñun ñëpp war nañu su fekkee muñ nekkul woon ci ñun bu déwénee buñ fi ñëwee loolu mën a jeexital dara ci ñun kon ñu jox yaa Seyda mu yëkkati waxtaan woo xam ni mu ngi ko jëmale ci mun